te bu fekkee ni carrément takkewu ci ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla leeral lépp mu génn ci waaye bu dee da cee takke te ñaanuñu yàlla mu takkal ci na justice def liggéeyam parce que ñun ñëpp ñoo dëkk Pikine te benn lañ te benn benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar euh, ñun nag dëkk bi fi mu toll instant yi da ngay ragal a wax da ragal a wax da ngay ragal a communiquer ñu ne lii la wax dangay ragal a def dara ñu ne lii la def parce dëkk bi ma xool gàmbu 15000 wax nga dëgg ah. euh, da ngay ragal a wax da ngay ragal a wax ñu ne lii la wax moo tax nit looy wax lu nekk rek fi mu ne nii da nga koy segg xool ko xoolaat ko parce que dëkk bi moo toj dëkk bi moo toj yaa ngi dégg ba coow li amee samay mbokk ñëpp di ma woo naan ma bu ci wax ma ne leen mais man pikin laa dëkk ma ne bu amee problème dama ciy wax ñu ne waaw rey gi dafa bari ndax Aziz daa waxoon ci ku rey ñu rey la moo tax ñu rey ko oh, yow bu ci wax ma ne leen mais yéen da ngeen a neex ñun pikin lañ tëgg ñun deretu pikin mooy daw suñu yaram ñun kee ñun keruñu loolu sax yow fii ku fi sa àpp jot ta ngay dem mais yàlla na yéex te ñu ngi ñaan yàlla bu ñuy jël mu yéex mu yéex mais Pikine lañ dëkk noo mënti def xoolal Sénégal moo garaaw gis nga tey boo toogee waxoo ci ŋaangoo ci ñu ne ñu ne kii gëmul dara xaas teg la gëm du jugee di di tiitaroo pikin bu jugee naan Pikine lii bu jugee naan Pikine laa te du du du du du du dara du am Pikine ba mu kii ci moo tax dañuy mal placé pour wax dañuy mal placé pour wax mais ñun Pikine lañ dëkk ñun ragalu keefuñu lool keefuñu lool man fa ma daan tëdd ba tey fa laay tëdd man ragaluma dara parce que man damay wax ni carrément lu ñëw rek yàlla la lu ñëw yàlla la yéen ñuy wax noppi leen arrêté leen seen autocollant yi ngeen di dugal man dama naan lu ñëw rek yàlla la ñun ñun pikin lañu dëkk ñun ragaluñu loolu yaa ngi dégg euh, mais dañuy ñaan dañuy ñaan dañuy ñaan yal na yàlla feeñal lépp ci daraje Seydina Muhammad salallaahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla teral yal nañu yàlla may gudd fan ak wér gu yaram yal nañu yàlla musal ci pexet noonu surtout loolu yàlla nañu yàlla musal ci pexe ak noonu parce que pexe noonu lu ne nit boo xëyee war ngaa ñaan yàlla musal la ci pexe noonu ndax noon lu ne mën na la ko tëggal noonu lu ne mën na ko def noonu mën na ko mën na la defal lu ne moo tax chaque jour rek ku yeewu rek waxal yàlla na ñu yàlla musal ci pexe noonu yàlla nañu yàlla may gudd fan yàlla nañu yàlla may wér gu yaram yàlla bu kenn manqué ñu ngi man ci may ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal mooy yaay Aziz Dabala yàlla na ko yàlla may xolub muñ ndax yàlla lu mu jël ci loxo lim ci bàyyee ci ëpp metti na nag foofu metti yam waaye yaay muñal muñal lii la yàlla dogaloon lii la yàlla mbébétoon lii la yàlla ni carrément bind na ko balaa Aziz di judd metti na nag ndax fu metti yam metti na man maa ngi doog ko gis senegaal dee xam ni ba ñuy dem màggal fi lañ ko bàyyi te bi ñu ñibbisee fi lañ ko fekk parce que dafa metti tellement que dafa dafa bul bul bouleversé boppu sénégalais yi sénégalais yi li leen tiital yombul mii lii dafa dafa jaxase sénégalais yi parce que dafa metti tellement kenn xamul ci àddina lan la ak lan la ak naka la moo tax dañuy ñaan duñ ci wax lenn loo xam ne nag dañ ñuy xeeb parce que tollootuñu foofu mais pikin lañ dëkk ci doomu Pikine la dal euh, la même chose maa ngi gis benn xale bu nekk euh, nu mu tuddati ginnaaw tëngee ñu mu tudd bari ñi xale bu ndaw boo xam ne 15 la am moom tamit ñu faat ko ñu faat ko ñuy ñaan sénégalais yi yal na yàlla sotti ndox mu sedd guy ci Sénégal nañu defaraat jikko yi seggaat jikko yi barki Seydina waaye nag lépp lépp li ko lal xam nga lan la nañu réglé nañu toog suñu kër yi restez chez vous comme boo toogee sa kër ñu fekk la fa rey la mais nga toog rek ba pare li gën a daas ñu bàyyi àndandoo ak xaritoo ak demalante ak dikkalante parce que lu yàqu ci àddina looloo ko yàq surtout loolu léegi nag lu ñu lu ñuy mën a def daal mooy dañ ciy wax wasu ci àq te yàlla rek tax mais duñ ci déborder duñ ci wax n'importe quoi euh, duñ ci accuser kenn duñu wax loo xam ne tey ku ko déglu day day dar bakkanam non non ñun duñ def loolu ñun ñoo mag loolu ñun ñun ñun ay porteur de voix lañ ñun dañoo war a déglu dañoo war a wax loo xam ne nit ñi dañuy déglu suñ ñu dégloo seen xel mën a dal ñu ngi ñaan ci réew mi jàmm ku xëy soo mënee saraxe ndox saraxeel ndox ku xëy soo amee lu sedd loo mën a saraxe bu dul ndox nga jënd soow saraxe ko saraxe ko parce que sarax da lay tënkal ci lu bare bari sarax da lay musal ci lu baree bari sarax da lay da lay lu baree bari buñ koy fàtte dégg ngeen parce que ñun ay jullit lañ te ay baa baatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañu lañu la ñuy nodd kon chaque jour suñu culture buñ ko bàyyi dégg nga maa ngi leen di ñaanal yéen ñi nekk ci direct bi yàlla boo leen gis loo leen ragal yàlla bu ngeen am déegu ñaaw yàlla na leen yàlla may gudd fan yàlla na leen yàlla may wér gu yaram yàlla na leen yàlla bàyyi ngeen yeggale ak seen sago te ku ne amin yàlla nga yeggale sa sago barke Seydina Muhammad àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay fii nit mënu fi lekk lu dul wërsëgam moo tax lépp rek nañ ko def ci fair play lépp rek nañ ko def ci jaar yoon parce àdduna tolloo nekkatul foo xam ni nit ñi dañuy nekk di wax naka sunu noonu wala ñuy ñuy ñuy def n'importe quoi amatul ma chérie amatul loolu amatul amatul yow eh jëndal ma comme boisson Assane bu 200 bi dégg naa day indi jabet dama bëgg a dama dama dama jabet sax mais dama bëgg mu yokk sama jabet bi laa bëgg mu yokk. sa kàppoo bi ne. te la ba muy indi dafay wax autoroute à péage noonu la ko dawalee ba yegg Touba. muy kàppoo. benn tóo bi def nii dafa wadd moom na mu accéléré noonu ba Touba. ku la wax kàppoo bi ngaa wadd. waaye dafa kaa woo ñoom dagg ba moom moo ko rocc kaa lonk la. waaye moom nga dawee ba fii. dafa bu weesu cinquante. ba si si fii. maa salaam. Cheikh loo bëgg. jamono xam nga xool fee. fii ba ba gaaw a egg si. rebe am na xasanaa ci màggal gi. gàmbu bii ma wax ba dëgg yàlla bu seddee kenn du ko mën a lekk waaye ma nii laay lekk je m'en fous fii dee bàyyi projet jox ma diw. diw bu ngaaw. dëkk bi lekk moo metti booy lekk dangay ngay sonn. ah yàlla 8000 xanaa maa dem hôpital ñu ma da nga jabet. léegi nag déedéet du ma moytu damay dégg naa jabet daa bëgg ku koy kókkali. waaw bay naan ay ji bi mooy ñetti ji ba ma xëy ak léegi. ah ma dem ma dem hôpital ñu ma jabet. bii suukar si moo tax ma ba ma bëgg sama suukar si yéeg. man nekkuma fi di stressé da nga jabet. lan. réew bi.